may commencé di wax man euh, man ma dama yore batou kuréel bu ñuy wax pôle pour alternative citoyenne manam ay mouvement citoyen ay acteurs de la société civile ñu melni wa waa la laa bokk ñu melni ni sa gox ñu melni syndicat national des travailleurs de la culture ñu melni vision Géejawaay ak ñenen ak ñenen ño dajé ak rëccu ño dajé joxanté loxo pour mën and manam xex xex bo xamni xam ni ni dafa wara soxal ñëpp moy manam li ñu wax peggu géej tubaab di ko wax littoral tegu géeju géeju géejawaay ñi ko xam ñun ñu yaroo fi màggee fi juddoo fi doon foyee ci filao yi ak littoral bi ak tund yi gis nañu yàq nañ ko yàqet yàq bi mooy lan mooy ay nit kese ñoo ñëw ba ko séddoo xam ñun souvent dañuy jaar ci digg bi nit ñi ko séddoo wax nañu sax ni ko séddoo nañ ko ba pare ñun waa géejawaay ñu ne loolu duñ ko d'accord ñu d'accord ay nit jóge ci àll ba ñëw séddoo sunu sunu sunu tund yi sunu peggu géej gi duñu d'accord ay ay nit di dëkk ci dëkk bi yore suñu ay ndomba tank ñom tam taxaw tay bëgg a doggali littoral Guédiawaye lo duñ ko d'accord hmm? pour ça on est très clair dinañ taxaw dinañu xex defoon nañ conférence de presse bo xamni wo presse bi mu def tour adina tay ñu def marche marche bi yaakaar naa ne gis ngeen réussite bi jaar nañ ci juróomi commune u Guédiawaye yëpp commencé ko waxe naan nimzat jaar euh, njaaram Limamoulaye jaar Sam Notaire Tersi euh, Golf Sud

di nasaxal suñu littoral bi mais ñu ne loolu ñoom fan lañ ko teg te ku wax ñu bëgg la taxé du n'importe quoi ñun ñun wa ñun wa PAK duñ ko d'accord dañuy xeex ba fin te li bu jexé di ngeen gis ni que dañuy demaat ci beneen niveau manam xeex bi sax day dépasser cadre Guédiawaye dañuy internationaliser la lutte loolu bi yow ñu xam ko dinañ dem ci bailleurs de fonds yi dinañ wax ak ñoom bu loolu weesoo tamit am na leneen lu soxal mooy lan mooy Guédiawaye mënuñu xel mënta nangu Guédiawaye bu ñu leen waxee ba léegi Guédiawaye amuñu ay sëkk mille 2011 ba léegi chaque année ñu ñu teg nañu xeer bu njëkk mais loolu lu muy nuru loolu yàpp waa géejawaay la pourquoi géejawaay war a mën a continuer di yóbbu seen i seen i ñi ñi faatu den yóbbu yoof ak Pikine te foofu ñëpp xam nañu daanaka fees na defar ay sëg rek man ni maire yi bu mënul defal sëg loo mën a defar nañ waxante dëgg ku mënul defal sëg loo mën a defar mënuñu la jox dëkk bi kon nga koy yor nañu nañu nañu seeti ñeneen bopp donc affaire bi dafa yomb ñun waa géejawaay am na loo xam duñ ko d'accord ci bu xeex bi weesoo di ngeen ñu gis ci yeneen xeex parce que géejawaay li mu manqué dafa bëri ñun duñu ay banlieusards yooyu gars yi di wax ay bande ñun duñu ay bande ñun ay nit ñu am respectabilité la ñun ñu respecté la ñu donc bu luy weesoo dinañ dem ci yeneen combat bëri bëri na fi fii ndóol bi metti na fi trop affaire agression yooyu bëri na fi ah mbënd mi añ fi assainissement amu fi parce que kër yi foos yi day fees tout nit ñi di ko war a dépassé géejawaay maanaam ville la au même titre que Dakar au même titre que feneen donc daal loolu ci tënk la ñuy mën a wax pour le moment di sant ñëpp ñi nga xam ne ñëw jàppale nañu parce que au la vraiment de ñi nga xam ni jóge nañu ci mouvement citoyen yi acteurs sociaux ñëw fii gis nañ fi waa ASCOSEN gis nañ fi les amis de la nature moom mooy euh, suñu mbokk Jibi Diop gis nañ fi euh, maire Grand Yoff gis nañ fi waa police aussi ñu ngi leen di remercier vraiment commandant corps urbain Guédiawaye ñu ngi koy remercier parce que jàpp na ci gis nañ encadrement defal vraiment ñu ngi koy rafetlu donc daal ci tënk loolu la ñu lu ñuy wax di gërëm ñëpp di sant ñëpp di def appel aussi à képp koo xam ne doomu géejawaay nga képp koo xam ni yaa ngi ci yeneen goxu senegal képp koo xam ne li ñuy xeex soxal na la nga ñëw jàppale ñu parce que tamit bu ñu seetaanee suñuy bët rek moo ñu dese pour jooy ëllëg si biir te du boobaa vraiment ce sera trop tard jërë ngeen jëf